day ñëw mu am sabar sabar da am tànn béer am mais fecc ñaaw ñaaw comme ñu ñaawee nii présentement nit ñu di ko gis réseaux sociaux yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko gën a yokk nit ñi di nit di ko gis élèves yi di ko copier mais mënoo dem sabar di fecc fecc gu ñaaw goo xam ne mën a suus nga ne élève la mala mala ko nga ne yow élève nga nit ñi di la seetaan mbaa ju lay wax ne naka si du noonu loolu vaut mieux ñu arrêté ko mu jeex loolu moom c'est à saluer pour ñëpp dem maintenant mais dem dem conseil des ministres président Bassirou Diomaye Diakhar mu ngi koy wax ñu xoolaat système éducatif gis nga bu nekkoon à la partie de seconde su nekkee ne ngay spécialiste bu nekkee ne électromécanique nga bëgg a def nga dem defi ko bu nekkee ne mécanique nga bu nekk électricité nga bëgg a defi ko su ko defee booy dem ba dem ba nekk terminal boo amee boo amee sa bac da am bac boo xam ne bac professionnel da ngay opérationnel fii da ngay jàng ba maîtrise dara da fac science jàng ba perte mënoo génne expérience mënoo génne benn dara ensuite suñu système éducatif na tel boo demee université boo bokkut fac droit autant pour boo bokkul fac science yeneen faculté boo génnee finalité bi mooy nga toog xaar ko nga dem jàngale ji moo tax énormément de boo xam ne maintenant comme ni mu ko waxee buñ ko benn boo xam ne c'est professionnel bu à de trop boo amee BFM rek bul neexee yow loo bu ko doon nga spécialisé boo jàngee ainsi de suite nga pare ensuite bu nekkee ne langue locale bi c'est que luy problème mooy am na benn euh, professeur Sakhri Thiam mos na koo mos na koo bëgg a initier mais nag gars yi awuñ luñ ko jàppal telle sorte que mu ngi noonu maintenant boo xoolee léegi localité bokkuñ luñ dégg boo jëlee saalu am na si ñoo xam ne olof lañ dégg nga dem Fuuta am na ñoo xam ne tukulóor lañ dégg maintenant on wolof nga nga affecté ko dans au milieu tukulóor déggul tukulóor nan la mën a dem def enseignement bi moo tax problème d' orientation loolu tamit buñ même buñ ciy dugg ñu xool problème d' ak d' boo xam ne ni tey buñ yóbbee benn Birahim Touré boo xam ne ni yóbbu nañ ko bande façon mu mën a làkk mën leen xool nu mu leen koy jàngale ba ñu mën koo comprendre loolu benn problème mu ngi ci ensuite ñu xool système de recrutement boobu dans le temps amoon na au niveau de Dakar dafa am déficit enseignant boo xam ne bëri na telle sorte xam bi nekk ministre de l'éducation dafa amoon benn xam benn enseignant kii dakaar Dakar loolu moo waral loolu moo waral nag ñu am benn déficit boo xam ne ak recrutement bi gëjoon na am bu bëri au temps de Abdoulaye Wade au temps au temps de Abdoulaye Wade boo xam ne dañoo recruter yu bari boo xam ne nii tey bu ñu ñëwee tey mën nañu mën a combler te ensuite gab bi à chaque ñoo xam dañuy dem retraite am na ñoo xam ne dañuy dañuy dem am na ñoo xam ne dañuy am na ñoo xam dañuy génn àdduna loolu yëpp boo ko dajalee à chaque fois day am gab gab bi moom mënuñ ko c'est que Wade ba mu commencé def ay abri provisoire créer ay lycées yu ba école yu bees da ko amoon benn mesure d'accompagnement boo xam ne ni tey système de volontariat boobu mu créé woon tey boo xam ne da doon wax ne endroit boo xam ne ne même pël bu nekk fin fond soxla école jox leen ko jox leen ko jàngalkat bi jéggi bu auparavant amoon nañ amoon nañ mesure d'accompagnement boo xoolee léegi volontaire amatut léegi da ngay def formation génn rek doon professeur kenn contractuel mbala maître contractuel boo xam ne da ngay et ainsi loolu tamit war nañ ko war nañ ko mën a xoolaat xoolaat auditer waat système éducatif bi xool de telle sorte que lan mooy suñu problème à sac fois ñu naan la élèves yi dañoo ni laar mëntu ñoo wax te xamoo les tenants et les aboutissants élève bi tant que amul 16 ans amoo droit dàq ko loolu loolu la yoon wax tant que amul 16 ans même bu doon def énormément de choses boo xam ne à sac fois autorité bi danaan la place école mooy ci biir place élève mooy ci biir école bi ci biir école bi la gën a nekkee en sécurité ko bu génnee ci biti moo tax moo tax ñun enseignants yi dañu am benn part de responsabilité boo xam ne parents lañ mag lañ conseiller lañ ainsi de suite kenn ku ne bu jëlee si élève fab élève jàppee comme doomam bala kar jarbaatam wala comme rakkam comme rakkam bu nekk si biir am na yenn relation yoo xam ne sax duñ mën a yegg foofu ba ba commencé ba ci ba muy jur yenn nii moo tax nag chantier bu ngande la boo xam ne nii tey dafa am dafa laaj ay moyens dafa laaj ay moyens wala laaj ay mot ay moyens moyens yoo xam ne ay ay jàngalkat yu ma la dafa laaj moyens yoo xam ne nii ay matériel didactique yoo xam ne nii tey auparavant je na benn Abdoulaye Diatta jël sali au passage dafa créé woon benn lu ñuy wax euh, benn 3W point volontaire point sn système numérisation boobu foofu tey boo fa duggoon tey dra dañ lay am ay petite séquence de vidéo ñu ngi lay wan ne nu ñuy tracé courbe nu ñuy tracé cercle du ñu nag au gouvernement de Sall ba defatuñ ko moo tax boo xoolee en revanche dañoo xaw a tardé ci problème yi ci problème yi numérisa numérisation enseignement te puis covid bi wanoon nañu ne ñun te obligé dugg ci enseigne enseignement en ligne covid bi covid bi maintenant université virtuelle bi amul lu ko gën maintenant luy problème école ndax bu doxee école formation yi duñ bëri kii arrangé moo tax dañ koy diabolise naan ko virtuelle baax bu saboté amul élève da am ordinateur danga nga am connexion en devoir koy def. loolu nag xanaa léegi la ndax loolu moom ci bi muy bi muy bi muy jël benn moom. c'était vraiment catastrophique. loolu xanaa peut-être léegi. virtuel moom amoon naa koo xam ay ay ay problème gis naa koo xam ne tey lali hôpital dafa def examen jàll examen. fa la ne def examen jàll examen ci virtuel. c'est que boo chaque fois koo ci gis am nga connexion yi ñuy wax naa amuñ connexion koo ci gis yaa ngi whatsapp koo gis yaa ngi tiktok te boo waxee ñu ne amuñ connexion ne leen <laughs> mooy dañ lay permettre ministère daf la permettre oon ak opérateurs yi fii nekk waaw mais nga jënd cent francs pour lu jëm ci wàllu jàng euh, voilà pass boo xamee ne pass spécial éducation boo xamee ne jëndee c'est juste pour voir na ba baax na wala yeneen mhm. mais gis na Pape Macoor li li mu wax ni dogguma la yàlla bu nu na dee